Ansoumana Dione maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay tey Kumba. Ansoumana Dione nga nekk njiitu ASAM association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades fan nga tollu ak xeex bi nga xam ni yaa ngi koy xeexal ñi feebaru xel. waaw Ndeye Kumba euh, ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa di wax ne euh, xeexu ñaar fukki at ak ñeent. yéen waa Rewmi FM mosu leen bàyyi ngeen ànd ko ak ñun tey ñoo ngi sant yàlla euh, suñ sant bii ci Kaolack ñu ngi fiy dimbali nga amee feebaru xel ci atum euh, ci janvier deux mille vingt la commencé liggéey comme ni ñu ko doon sàkkoo comme ni ñu ko bëggee woon tey jii euh, ñoo ñoo ngi sant yàlla ay nit ay nit ñu ngi fiy fajoo ay nit wéere nañ fi ay góor ak jigéen ay mag ak i ndaw si euh, suñu doon dimbali ñu nag ñuy ak service psychiatrique bu Kaolack ay infirmier nekk fii di liggéey ak accompagnant ñeen ñu toggal añ ndékki ak reer te loolu yëpp nag malade bi su génnee ka di tërëb lépp ñoo koy jënd ordonnance yi lépp ñun ñoo koy dem tey ñoo ngi sant yàlla bañ commencé ak léegi lu ëpp si juróom nit faj nañ leen ba ñu wér ba ku nekk dellu sa bi ak jaboot fii ñuy wax nii wax dëgg yàlla lu ko jegee fanweeri nit ñi ngi ci sant bi di faju di jël seen ay garab euh, wax dëgg fa yàlla seen mbokk yi di leen seet si loolu yëpp nag boo ko jëlee wax naa ko sax ci njàppalewu état senegal Sénégal jaxale ko ci président la dëkk son excellence monsieur Macky Sall euh, tey jii ay nit li euh, nga xam ne ñoom ñooy wéjur yi ñoo xawal seen bopp bu njëkk ba da ngay dégg ñu naan dox du ab lu wér dafa fekk ne defoo ci matukaay yu euh, euh, maanaam suñu liñ koy ci wan tànkatawuloo ko nag tey am yu bëri nit mooy sonal ci pauvreté mais bu fekkee ne nit ki jéem lépp di ko ko fayal day dem ba finalement bi day na ci moom du am neex maanaam day day day nekk sant yàlla waaye ñu doon liggéey bi comme euh, euh, euh, kon centre bi ubbi nga ko bu Kaolack bi naka la tudd centre bi parce que jur na coow dafa mel ni centre Ansoumana Dione nga ko tuddee. non centre bi amul coow amul coow Sénégal yëpp ñoo ci d'accord ñu tuddee ko Ansoumana Dione xam nga sax. buñ ko jëlee suma loxo loolu lañ doon wax centre ensemencement lañ doon wax parce que loolu moo nekk man la njiital Assam man maa nekk ci bopp Assam maa nekkoon ci combat bi Sénégal lépp ràññee ko Sénégal lépp seetal kon tey buñ demee ba ba ñu jox ñu suñu yëf xanaa nag kenn du jël sa yëf di ko tuddee xam nga ñoom ensemencement moo ci moo ci nekk ñoom tamit suñ ko suñ bopp ensemencement la ñu doon. tant que ñu wax dëgg wax dëgg fa yàlla euh, ku fa ñëw rek fii Ansoumana Dione la ndaxte ci wàllu cet gi ci wàllu taar gi ci wàllu rafetal gi lépp bu lépp gën a yéen ko peinture ko lépp xam ne ni rek euh, pour que ku fa ñëw xam ne fii doomu adama da nga ci toppatoo xam nga tey boo demee ci hôpitaux yi da ngay def ne euh, ñi am feebaru xel ñoom dañu ko di ay nit fii ndey ko ku fi ñëw dañu xam ne fii koom yëpp dañ ciy toppatoo lépp loo xam ne ci wàllu sécurité lépp lu aajo wàllu faj bi jël nañ ko togg yi ñuy togg euh, lépp rafet lépp jaar ci yoon parce man Ansoumana Dione la ñuy togg a maladie ci lay njëkki ci lay añ ci lay reer pour que effectivement ñu xam ne ñu ci yore ay ay ay nit lañ yoo xam ne yu am droit au bien-être yu am droit wér yu am droit lépp loo xam ne nii doomu aadama bi ëpp temps soxal na ko dama koy sama gars yi tout le temps lépp loolu defal malade na ngeen jàpp ne président de la République dañ koy defal parce que malade mental bi président de la République toppaliwu ko dara gënuwu ko lenn ñun ñëpp ñëw bopp benn droit réew mi loolu moo tax en tout cas lépp dañuy def rek ci bàyyi xel tey ndeyk ba ba fi ñëwee tey yow mii si jëm bopp soxal dafay seet hmm. lépp malade mental fi lay jël sax li xam ne teraanga la moo tax ñu bëri sax bu ñu ñëwee dañu fa ne kenn ñëw fii ñu ngi seen biir ay néeg ñu ngi seen salle télévision ñu ngi waxtaan seen biir jàmm kese moo ci nekk moo tax daa wax dëgg yàlla damay sant nag yàlla parce que nit ki fooy xeex benn mbir ba mu jox nga ba bañ teg sa loxo tey jii yàlla dimbal la ba ay nit ci wét da ngay gis ne sant yàlla rek en tout cas euh, mun nañu def. Ansu mm. euh, est-ce que am nga euh, soutien wu autorité étatique yu bees yi parce que dañoo am njiitu réew bu bees ak autorité yu bees est-ce que ñoom ñu ngi lay soutenir comme président Sall ni mu la daan soutenir. xam naa ne euh, ñëwaguñu waaye xam nañu man maay kan ba ñuy def dialogue sur la justice les offices de la justice dañu may invité man Ansoumana Dione en tant que administrateur de ce centre. parce que man nay administrateur du centre Ansoumana Dione kon ñoom xam nañu kan may Ansoumana Dione léegi nag le nouveau ministre de la santé monsieur Ibrahima Sy gisante gu ñu waaye ñoo ngi déggante réerewuñ ci lenn président Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko mën nañu def lu dul dooleel ñu parce que ñu li ñu def askan askan lañ ca defal te réew euh, kilifa yi askan nekkal kon diggante sotti ci ak def ci def naa ne xuloo werante mën fa am léegi nag ñun li ñuy wax mooy la ñu bëggoon mooy am suñ outil de travail ñoom ñii suñ ñëwee ñu daañu liggéey ñoom suñu ñëwul ñun daal ñu liggéey parce que ñun am nañu ay pexe ay pexe yoo xam ne ni daañu mën a dimbale ba lépp loo xam ne ni soxla nañ ko ñu mën ko am waaye nag dafay rafet dafay jaadu ci le niveau pouvoir ñu accompagner comme naka euh, président Abdoulaye defee comme ni ko président Macky Sall di ko defee moo tax man aw ma ci benn sikk sàkk aw ma benn ñaaw jot maanaam sama yaakaar sama yàq la am ne Bassirou Diomaye Faye ni mu fonkee nit parce que ñoom nee nañu nit moo nekk au cœur de de la préoccupation euh, Bassirou Diomaye Faye boo ko loo na muy waxee nga xam ne kii ku fonk doomu aadama parce que moom moo ko wax nee dafa amoon benn frère am boo xam ni dafa amoon handicap yàlla def mu gaañoo kon moom ëppalewu ko dara te gënu ko dara yàlla moo dogal ci moom ba Bassirou Diomaye Faye mu am wér-gu-yaram ba nekk président de la République kon kooku bu gisee liggéey bi nañ nii intérêt am la moom Bassirou Diomaye Faye intérêt Ousmane Sonko la ñu dugal ci seen loxo xam nga tey boo gisee euh, ñuy def ay bitigu set ay ay bitigu set setara dëkk bi boo ko balee ba mu set amatu mbalit nga bàyyi ay nit tam sabru xel nekk ci mbedd mi mais boobu moo gën a garaaw kon ñoom am nañu intérêt accompagne ñu te am naa yaakaar bu wér le ministre de la santé war naa gisee ak moom fan yi euh, ñoo ngi déggante bu gisee xam naa ne moom dana fi ñëw te am naa yaqin ne Bassirou Diomaye Faye dina sol dàllam ñëw ci santé bi xool li ñuy liggéey te bés bu ko xoolee ma ne du sañ def ginnaaw ci foog dugal ci loxoom parce que dama naan tout le temps suñu borom ku mu dimbale ba jiital la am na lu mu la yéene lu toll nii nag mënoo ko gis ba pare nga mhm. euh, ñu wax un ci wàllum euh, politik bi si naka nga gisee coow li walla euh, kàddu yi nga xam ni président Diomaye Diakhar fa yëkkati na ko par rapport ak ñuy xaar mu génn ci conseil supérieur de la magistrature ba léegi nag waxagul lu leer lan nga ci mën a wax exactement. ci waxtaane nañ ko ci dialogue bi euh, ci dialogue national bi ci assise de la justice mais point la boo xam te ni nit ñi jubawuñ ci ñii dañu d'accord ne na ci génn ñii waru ci génn waaye lu mën xew nañu tey def ndànk euh, président rappique génn loxoom ci conseil supérieur bu magistrature mën na baax de mën na baax lool waaye mën na am feneen foo xam ni aussi mën na fa sooxee ndaxte bu ñu demee ba comme ni ko borom xam-xam yi di waxee ñu am benn état boo xam ni ay juge ñoo ko yore maanaam si comme si réew mi ci loxo ñi àtte rek lay nekk loolu tamit mën na jur musiba waaye comme ñoom ñoo ko waxoon nit nag góor ca wax ja c'est man Ansoumana Dione ku ma xam-xam ne man dëgg ki la ma fekk ci may bàyyi man ci dëgg lay dox ñun ñoo waxoon ba mu leer Ousmane Sonko moo waxoon ba mu leer mais bu ñu génnee nguur gi dañuy génne seen loxo ci contexte période bu magistrature kon nañu fonk seen kàddu te génn ci processus période de magistrature alors lu ci mënti am ñu xam ne ñoom ñoo ko waxoon léegi nag bu laajee jubanti it ñu jubanti waaye ndax si loo lañuy wax juge de des référés maanaam euh, le procureur doole doole googu noonu. dañ ko war a wàññi naka lañ koy wàññee bu ñu amee juge des référés kenn na su boobaa euh, lan lañ ci doon tiit danañ ci mën a jóg su fekkee dina tey jii euh, da ngay gis euh, nit ku ñu jàpp mu am liberté provisoire provi juge bi nangu ko ko procureur def appel ne d'accord ma ñu téye ko alors que procureur moom da koy téye li mu mën mooy toppee bu la toppee juge moo naan jàpp naa la wala bàyyi naa la waaye bu la ciy bàyyee procureur ne bàyyiwuma la kon day mel ne procureur moom mooy ngi moom mooy topp léegi di comme lii moom moom la procureur moom mooy jàppe kon mbir mi dañ ko xoolaat ñett la nag lu diis la wala man Ousmane Diagne dama jàpp ne comme ñoom ñoo waxoon ne bu ñu jëlee nguur gi dañuy gindi seen loxo ci magistrature am na loolu bokk na di ñenn ñi di taxaw ñu voté leen nit nag boo campagne lay campagne ba ñu jox la da ngay jëppale sa kaddu ak si jëf kon tang man li may xaar si ñoom mooy ñu génnee seen loxo ci conseil supérieur de la magistrature waaye nag kuréel sax bu ñu di jël dañoo koy nangul léegi-léeg nag nam nga bëgg dara di wut di wax ñu jox la ak li ngay la ngay jëf mën na wuute loolu nga loolu xëy na beneen débat waaye nag li gën a jàpp mooy cox cox jot di sàmm seen ay hmm. merci beaucoup Ansoumana Dione ñu ngi lay remercier bu baax a baax. man maa ngi gërëm di sant bu baax a baax a baax. voilà ñuy fàttali ne Ansoumana Dione yaa jiite ASAM des associations euh, pour le suivi et l' assistance des malades mentaux Sénégal jërëjëf Ansou.